Salut les amis de Sport TV, merci encore Gaël de la confiance renouvelée. Hein. Merci de vous like, merci de vous abonner. Merci également Gaël de baisser les commentaires, un plaisir renouvelé chaque fois de partager information. informations. Bok Sénégalais, il fait folle maintenant, 14 hein. régions du Sénégal, Rukhoukhari, Gorgokhari. Nous sommes déjà folle, nous sommes également à l'hôpital et à l'hôpital de février, nous sommes en train de faire des jam. Nous sommes aussi erreur judiciaire, nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en de faire des choses, nous sommes en train de faire des choses, nous sommes en train de faire des choses. on avance ensemble dans la magie des Sport TV. La actualité en continu gars actualité à ñu fas yéene waxtaanee Cher mi coupe d'Europe ak Italie wax également tiki ki nga on en donc Onana mi dem du côté de Manchester United ak aussi Sergio Busquets mi fekk ji la poule gars du côté des États-Unis loolu lañu mais laata boobu nag Moustapha Gueye génn na fukk ak ñaari gaynde yi jigéen yi war dem euh, ci Coupe d'Afrique bu jigéen yi tàmbali ko xam donc kii di Sierra Dillard di américaine bi naturalisés naturalisé Fatou Dieng xam ngeen ko ah, ñu tuddee ko Fatou Dieng Kouna Ndaw Yacine Diop ah, Fatou Pouy Aya ah, am aussi soxna si la Mathilde Diop Oumou Kalsoum Sarr am Aram Ndaw Aïcha Ndour ak aussi Fatou Diagne ah, mu ngoog Mathilde Diop ñoom ñëpp a ah, gars yi ñoo yem ki nga xam nag mooy président bu waa Algérie fédération bu Algérie ah moom dafa daal di tekki ndax li nga xam mooy comité exécutif bu CAF bi passé dafa demoon ñu daal di ko fay làbbali loolu bokk na ci li tax daal moom ba mu demee Algérie mu def ab vidéo ne moom day tekki ndombal tànkam ci fédération bu <coughs> Algérie gars nag ñaar fukki fan ak juróom-ñeent 29 ans ci bisu tay gi ni lay mat 29 ans ba Brésil jëlee coupe du monde 1994 dóor ñi nga xamné nak moy euh, Italie au tiro bi ki di Roberto Baggio bokko na ci ñi raté gaay yi donc ñu xamul amna ñu bëri <laughs> jamono jooju juddo ko ñu won ci ñenn ñi ah donc amna ñu ñuko fekkee amna ñuko sétane sax ah kii nag di Calvin Phillips hein du joueur bu euh, Angleterre mais également au Manchester City mom nak papam mi ngi ci kasso bi mom nak nee na fi mu ne nii bëgg dal moy euh, fexe papam génn ah loolu wax mom nak juróom ben at ni ba mu gëjoon gis papa ah ci loolu dal. nekk loo xam ne nag papaam nag dafa ne fi ni bu ma rek la bëgg moy wër di and ak yow di sétane match ngay joué di ñaanal tamit ñepp ñoo xam seen waju ñu ci kaso rek suñu borom génn leen fa tegaat leen seen loxo ñu degaat ci yoonu jub ki di Sergio Busquets ah mi ngi ni mom dem na du côté de la MLS notamment de l'Inter Miami fekk ji Lionel Messi gannaaw nak FC Barcelone dajawaat nañ mais nak li réelu moy wa MLS championnat MLS bi ba ñuy présenté Sergio Busquets ah photo biñ def photo arbeola <laughs> photo Arbeloa laa lañ jël def ko ci gars yi li gën a photo joueur wu Madrid nga jël ko di ko jaawaleeg Busquets bu baax saa xam naa ne tey <laughs> waa MLS nekk nañ ko dégg gis ngeen photo bi lañ jël xam naa ne daa niroog Busquets rek ñu yaakaar ne na de ne ah, daal leen di jënd la nga xam ne amatuñ contrat ñu daal leen di jënd kii nag di Seko Fofana moom finalement da dem Al Nassr ay problème këyit la woon problème administratif la woon léegi nag lépp mat na donc day dem fekk ji Cristiano Ronaldo ak ki nga xam donc moom nag N'Golo Kanté nar a nekk ci milieu euh, moom mi ngi al nag di Mbappé lundi reprendre entraînement yi ëllëg waaye bu reprendre nag moom na sa ay xelaf war nañ toog waxtaan donc Mbappé nee du jóge Paris Saint-Germain te tamit nangul signé contrat loolu daal moo doy waar kii nag di Onana ah signé donc officiellement rek ñu présenté ko donc def kii yep, mais d'accord avec na ak Manchester United contrat bi ba 2028 lay jëm mais dafay am année supplémentaire pour mu 2029 hein qui du Onana wax Manchester maintenant un bon gardien on en a. ah Onana comme Onana Onana donc enfin signé na contrat am du côté donc du Junaay euh, Tidan donc li dese moo officialisé ko et tout parce que d' accord naa ah, ñaari club yi d' accord nañ nag di Pape Matar euh, la nekk gis ngeen ko ak waa Tottenham wane ko nee na fi ne mi ngi recharger batterie ah nga xam ne concurrence bu metti moo ko fekk Tottenham mais yàlla na ko yàlla dafa jàmm rek ah yàlla na ko yàlla dafa jàmm parce que booy boo xam pour man bëgguma ko gis muy toog ba ah. loolu lu may naqarle parce que dafa am talent et progression lay lay

en jouer une heure de temps ci li nga xam bi donc mon beaucoup ci cadre yi donc euh, gis ngeen ko le milieu de terrain il est très technique hein, milieu de terrain italien gars yi kii na Sénégal dem jël quoi ba léegi équipe nationale Italie A mi ngi si équipe nationale petite catégorie mais boy bu am talent la te ñëw na signé Paris Saint-Germain waxoon naa ko papa moom nee na bëgg na doomam jouer pour Sénégal gars yi li moo nekkoon information yi ñu leen bëggoon jox hein, donc toujours un plaisir de vous servir ou il di like hein, wooy leen di abonné on avance ensemble dans la magie des sportive TV sous si yéen la suba la suñul la bu leen fàtte nag bës ci lien bi def abonné ci Baba Show ngir jot version française on avance ensemble gars toujours plaisir de vous servir ja ngeen